alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah di nuyu bu baax eh, di leen ndokkeel di ndokkeel mbooleem mbokki taalibe yi fi nekk ak soppe yi nga xam ne tey képp ku fi ñëw rek yàlla moo la fi indi wax naa sànq ne yu mel nii yàlla dana ebal malaayika yi pour ñu ñëw xoolal ko lan moo fi xew suñ delloo Jibril ak ñi mu àndal danañ ko wan ne ko diw ak diw ñu ngi fi woon waaye ndaje bi nga xam ne yaa tax ñu ko doon def taxu leen woon a jóg seen soxla lañ fa doon dox yàlla ne baal naa leen ñoom ñëpp ñu kenn du jëkkaale ñoom tey di taxawaay bi kon nag fii tey tey place cafe la place bi cafe la ndax suñ koy defal dafa màgg ba nga xam ne wax ko sax mënuñ ko mbiram ëpp na wax waaye képp koo xam ne taxaw nga ci mbiram. yàlla dana taxaw ci sa mbir te moom wax na ne inna alladina ni naalu muraadahum saadatan wa maalu ne nag ñi nga xam ne liggéeyal nañ ko moom Baye mu ne danañ jot seen bëgg-bëgg yëpp danañ texe ci àddina ak ci àllaaxira danañ am alal su fekkee ne moom lañ soxla te sufiyanke yi waxoon nañ bu yàgg ne xidmatul muridi sullamuhu ilal muraad waxoon nañ ne taalibe liggéey bi muy liggéeyal fëriñ bi mooy escalier bi muy éegee pour jëm ca bëgg-bëggam wala pour jëm ca yàlla ci boppam waaw loolu nag amul lenn lu ko féetee kaw kon ñu ngi sant yàlla beneen yoon ñoom muqaddam yi mag yi ñoo daje waxtaanee ko ne nañu defal baay ziyaara ndax baay ci boppam waxul nañoo leen ziyaaram ñoom ñoo ko tànnal seen bopp pour ziyaara ko di ko defal ziyaara bi di ko defal ziyaara bii am na ci ziyaara yoo xam ne sax fekkut ko fi nga xam ne kon moom toog di xaar pour ñu ziyaara ko pour defal ko dara waaw yàlla rek la fekkoon ak ñoom am na ziyaara boo xam ne dafa wax ne ñoo ngeen ci leen ma ñun ñëw fi daaw jéeg fekk leen ma fi ñun ñëw fi daawaati jéeg fekk leen ma fi yàlla mi ngeen fi doon fekk bi ngeen ma fi ngeen fi fekk tey bi ngeen ma fi fekkee kon kooku ooteetoon jëme ci ci yàlla rek la ootoon jëme nit ñi ñoom ñooñu nag muqaddam yi mag ñooñu ñoo ko sosoon suñu waajur xaj na mu nekkoon seen bindkat buñ waxaan ba d'accord ci bis biñ koy jàpp mooy bind lettre bi ni nga xamee ni ba léegi lettre boobu ñu ñoo koy bind ñooy oote itam ci jumaa ji waaye ñoom muqaddam yi mag yëpp alaaji ma abdu ñang Alaaji Lamin Tuuti Cheikh Serigne Mbaye Niass Serigne Ibra Fall Serigne Ousmane Ndiaye Cheikh Omar Touré demet ak ñu topp seen gannaaw ñooñu ñooñu nga xam ne ñoo sos mbir mii ñu ngi ñaan yàlla yàlla fay leen ndax oote nañ jëm ci loo xam ne ñu bëri roy nañ leen ci jamono ba ñuy ziyaara bàyyi man ngaa wax ne réew mi boobu amul kenn ku ñu ziyaara ñoom la ci nit ñi roy ba li ñëpp am kon ñoom danañu am yool bi am yool yi képp ku leen ci roy ba péncam yàlla yàlla yàlla yokk seen leer bàyyi dafa wax ne gàmmo xeet la ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi ku ko liggéey rek texe ziyaara yii ñu defal sëriñ si itam xeet la ci liggéey leen te wax naa sànq ne moom wax na ne képp ku ko liggéeyal da nga jot sa bëgg-bëgg da nga am texe ci àdduna ak ci àllaaxira da nga am alal su fekkee ne moom nga bëgg wax naa itam ne sufiyanke yi wax nañ ne liggéeyu taalibe ci sëriñ mooy escalier bi muy éegee jëm ca kaw jëm ca bëgg-bëggam wala jëm ca yàlla ci boppam sax ndax nit ki bu xeloo yàlla rek la war a bugg xam yàlla rek la war a ut te bàyyi loolu lay indil nit ñi kon taalibe Baay yëpp maa ngi leen di ndokkeel ci bis bi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah